waaye ñu photo ak tête de liste nationale Jakarta Mane ñu ngi fii kon les investis dañuy jël photo ak la tête de liste nationale Ousmane Sonko direct. kon mbokk yi dafa am lu am solo loo xamante ne bi nga xamante ne préparé nañu pour def li nga xamante ne moom mooy suñu campagne législative moom lañ ñu woo te am ci loo xam ne. GPS da ngeen a yàkkamti bu ngeen ma yàkkalul rek maa ngi ñëw ci yéen maa ngi ñëw ci yéen may wax ne parce que dafa am lu am solo loo xam ne faw ñu wax leen ko dañoo bëgg bu président Ousmane Sonko jëlee kàddu ba pare képp kenn ci yéen boo duggee sa koñ kër boo dugg nga mën a wax as tuut ci li nga xamante ne moom mooy référentiel 2050 parce que gis ngeen mbokk yi faw yéen askan wi ngeen jël référentiel bi def ko seen moomeel dégg ko xam ko ba mën koo defendre saa ne parce que loolu mooy yoon wi nga xamante ne fa la ñuy jaar ngir suqali senegal te référentiel boobu quatre axes la quatre axes yooyu laa leen di jox bu ma leen ko joxee ba pare nag jël micro bi jox ko kilifa gi nga xamante ne sans mbooloo mi yëpp moom la ñuy déglu quatre axes yooyu ban la. moo jëm ci li nga xamante ne mooy agenda de transformation nationale bi njëkk mooy une économie compétitive boo nee économie compétitive nag mooy koom goo xamante ne Sénégal saa su ne mën na am koom goo xamante ne mën na jëm ca kanam mën na compétir seen biir même à l'international nga jóge foofu dem ci li nga xamante ne moom mooy aménagement et développement durable Amadou Ba mi koy wax jafe-jafe yi nga xamante ne Thiès amoon na ko ci wàllu dëkkuwaay te muy continuer di ko am te ñii bi ñu ñëwee moom président Ousmane Sonko ak ki nga xamante ne moom mooy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ñu def ci liggéey bi mucc ayib donc loolu également c'est important il fallait que ñu wax leen ko je dis que mbuurkat kese mbuurkat képp suffit ce dossier kese doyoon na sëkk ngir ñu doxaat kàddu gi ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ngir am majorité à l'Assemblée nationale waaye boo jógee foofu nga dem fële nga xamante ne moom mooy capital humain yu doy ci wàllu la formation de la jeunesse ñu am te autant d'écoles de formation loolu mbir la moo xamante ne day permettre à ce que jeunes yi ñu am une bonne formation laaj beneen bi nga xamante ne moom la mujjee mooy bon gouvernement bonne gouvernance et engagement africain gis ngeen mbokk yi ñi ngeen gis ñi ñëpp tey kenn sañu ci jël benn oto boo xamante ne oto nguur gi la ne da koy campagner loolu mooy bon gouvernance kenn sañu cee jël carburant boo xamante ne carburant nguur gi la ne da koy campagner loolu mooy bonne gouvernance waaye li ñu gëm te Mamadou Dia waxoon ko te ne moom la meree woon Senghor mooy dafa gëm ne Sénégal yoon wi mu war a mën a jël mën na servir de tache wil ba yeneen dëkk yi nga xamante ñoo nekk Afrique yëpp mën koo topp muy seen yoonu développement lii mooy projet bi nga xamante ne mooy référentiel bi ñu leen présenté te kilifa gi war koo jokkali kon damay jël kàddu gi jox ko ko mu mën koo yaatal waaye président Ousmane cette jeunesse là la JPS de Thiès la JPS du département de Thiès nee nañu dañ lay sargal kontaan nañu bég nañu ci ñëw bi nga xamante ne tiddee nga ko campagne bi fii ci Thiès. kon dañuy jël kàddu gi buñ ma joxee beneen micro bi voilà mi ngi ak moom kon président Ousmane kàddu gaa ngi noonu. Eh, eh, eh, ana torsi ana torsi na tàkk ma seen si kaw na tàkk si kaw may seen est-ce gaynde warul tiit moo di buuru àll be la fekk dalay daan loolu la ngeen waa boo fu la fayda kenn du la yee tout le fu la fayda boo amee fu la fayda Pastef so my girl said Monsieur Ousmane Sonko Eh, ful la fayda gisuma loxo yi si kaw de jërëjëf ma présenté leen Ousmane Sonko di kenn ci turandoo yàlla na ko yàlla def mag jërëjëf mbokk yi asalaamualeykum e eh, Sonko yee mbokki Thiès asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte teewaat fii nga xam ne mën naa wax ni kenn ëpplewuñu fi